boobu soxla nga ko woon loolu tam intégré loolu. ah parce que saay-saay bi mi ngi ci ginnaaw peut-être léegi koy bàyyi moo ne stratégie am yëpp pour nga xam. du noonu. parce que xamagoo lépp peut-être. waaye moo tax ngay naa bàyyi dina ñëwaat su ñëwaatee dina feeñalaat lii à partir du moment bu feeñalee lii nag moo gën a préparer sama défense nag peut-être. ah muy stratégie boobu te ragal naa ne loolu la. ragal nga ni loolu la. waaw ragal naa ne noonu lañ doxalee. kon yow da jàpp ni fii ak mbir yi leeru ci Ousmane Sonko duñ ko bàyyi. nii et puis tam benn affaire. oui oui il faut se dire que accusation bi ci Adji Sarr. base viol bi. oui bon c'est-à-dire man dama mus a wax ne góob viol. Hmm. mais lu am. Hmm. Ousmane Sonko nous a vendu massage man góob ma massage tam. loolu tax ñu ma yóbbu kër yaa ma di tax. taw ma fa nekk góob massage mais dafa mus a wax ne góob viol vidéo yaa ngi existé <laughs> léegi comme base bi loolu la woon. Hmm. ah. xëy na mën lii parce que ah. ñoom am na foo xam ne comme tam dañuy tooñ mën na am muy loolu li ma la wax. sentir nañ parce que boobu force occulte lañ doon wax mooy dafa làqu feeñagul. Hmm. kon dañ ne comme occulte nañ bàyyi mu feeñ ba pare ñu doog a ubbi. léegi nee na à des actes terroristes. Hmm. kon mel ni y' a un développement progressif de la mais mais mais mais euh, mais hmm. en deux mille vingt ans un Ousmane Sonko daanaka juróom-benn fan la def kaso juróom-ñaareelu ñu bàyyi ko ndax pression bi ci ci ci ci. ci ci euh, ci mbedd mi ba xëy na sax loolu la ñu bëri di téye léegoo-léeg ci moom ak ñu mu àndal ne bàyyi naa sama bopp askan wi ñoom xam nañu ñu ragalee ko loolu ndax jàppoon nga en 2023 condamnation am depuis le premier ba fii ma waxee yow Ousmane Sonko mënul dem mënul ñëw li mu bëgg amu ko te amul dara ci taxawaay en tout cas li ñu wane ci force euh, maanaam euh, def rapport de force bi ci terrain bi ngir ñu bàyyi ko ba démb yeew ne dañuy dem lever blocus bi la ñu bëggoon amuñu ko te lii mel ni muy bëgg continuer mu mel ni dañu ne tekk di ko seetaan Ousmane Sonko ak i ñoñam euh, loolu xalaatoon nga lu mel noonu am su dee ne am na nii moo jàngatee. mais dama kaa wax. wax loolu noo ko jàngatee loolu. wax naa ko ñaari atu yéene kaay mag ci dëkk bi ma ne. Ousmane Sonko fait attention. parce que euh, un procès jamais politique ne s'est jamais remporté la xam nga wax naan Ablaye Wade la ñu wax naan mu ne un procès politique se gagne dans. oui dans la rue kii devant la rue yëpp ci ko soxlaa 88 ko jàpp 94 dañ ay coow mais teewul gars dañ ko tëj Mamadou Dia noonu doole la amoon moom tam ñi fi jaar ñëpp dañoo mës a am doole Assane Seck mooy tudd loolu ñoom Plan Sénégal dañoo amoon doole. am na benn kilifa diine gu mag amoon parti politique. même chose bi ko doolee la am nekk fii su xalif général jamono yi tarixa presque bu ñu jàpp ne xëy na amoon na influence mm. ko jàpp donc man sa ci taarix. musuma mm. gis opposant bu gagné procès ci mbedd. kon nag su ma sañoon Ousmane Sonko nga mm. considéré sa attitude foofu dégg nga léegi rek. oui mooy comme li ngay wax di rek. be danaa bett de ah. non non bett jàppoon nga ni waaye. maanaam li mu ne ah ah. maanaam que ni le fait que ñu téye ko noonu ci si cité kër góor gi. te amul mouvement de foule pour wane ni duñ ko nangu dañ koy bàyyi mu libre lu ko mooy ñoom dañuy continuer de maintenir la pression comme ni ñu ko defoon en 2021 ci bi ñu ko tegee loxo. wala xëy na ñaar yooyu du benn. xam nga répression mu ne ca kaso ak mu ne këram xëy na du benn. répression bi natu yi ciy barante. ah kenn xamul lu gars yi génnee lan la. Ah. man daal xam naa ne am na lu ma jaaxal. <laughs> mooy dafay benn alxamis bi. Hmm. dafa mel ni daal ay tamalaay dégg waaye bi ñu nee ba ci aljuma ja tëggin bi soppeeku na de xaw ma lan la nag. maanaam <laughs> dañoo gën a yokk. waaw dafa mel tëggin bi soppeeku na de li koos yi nag gis mbedd yi nii ba tekk xëy parce que xam nga boobu moom génnuñu sax ñun ñun foo làqatu. Ah. <laughs> da yaakaar dis ah, dañ ah. moo tax. non tëggin bi soppeeku na de tey tey gi moom beneen la <laughs> beneen la. moo loolu nañ ko tenir en compte. waaw waaw li ci am rek. yàlla yàlla def jàmm Sénégal. ay yàlla def jàmm Sénégal. parce que vraiment. xam nga mais comme li moo wax rek tamit. Euh, na ku nekk payer ses responsabilités. Hmm. am na lépp responsabilité la rek. lépp responsabilité la. Hmm. man loo ma laaj rek ma tontu la c'est-à-dire que comme Macky Sall. Hmm. troisième mandat day addi coow. et puis ma yokk na tam foofu. mooy on di souvent euh, aucun dictateur au monde n'a pu remporter le défi contre son peuple gis nga aussi Moubarak. bi ñu koy daaneel Égypte. ah bi ñu koy daaneel Égypte. ay corps soviétique lay gagné. Blaise Compaoré noonu Burkina Faso ñaanu ñu yàlla loolu Sénégal xam nga. Hmm. mais bu benn tam naa ko. Hmm. ba defee ne yow yaa ngi dégg sa. waay doo sa a jugee sa place. surtout que ñoom daf ñu war a inspiré ñun tey parce que dafa am ay vagues yu bees mais manifestation yi deux nag. ak hmm. xam nga lu ñu wutale. adhésion populaire bi bëriwul bi yoon. justement mooy phénomène bi ma la wax ne. naka la bi bëriwul bi yoon te man xelmatiku woon naa ko loolu boo xoolee à part des législatives yi dina dafa am benn fait bu gars yi seetlu de 2012 à 2021 dañoo jàppee Macky dictateur ki moom il faut nga génn ci mbedd mi sànni xeer mu jub mais gars yi yoo dem gagné local ay dëkk yu mag. waaye gagné législative ba législative rek donc gars yi amatuñu même état d'esprit ils peuvent se dire que kii mën nañu ko fi jëlee par carte ek carte mën na ko fi jëlee nag bu ñu waxantee dëgg. carte mën na ko fi jëlee mais am na liggéey boo xam ne bu ñu ko defee. oui carte mën na fi jëlee président. d' accord bu ñu waxantee dëgg. alors euh, Thierno bëgg naa mais ah nu ñu def ba gagné Dakar. ak Guédiawaye oui oui. am na ay dara gagné Guédiawaye. ba Thiès ñoom quand même bu ñu continuer loolu. Hmm. carte ko fi kii jëlee moo gën ñuy même bu doon présenter candidature am nañ ko lijjanti ak carte ñeneen ñoo xamante ne xëy na yeggaguñ ci lijjanti ko ci carte mais ci seen bind di ay taskatu xibaar xëy ñu gis euh, ñu xaatim hmm. euh, ab texte boo xamante ne daanaka quatre-vingts lañu hmm. ne ñoom ils sont contre euh, la candidature du président Macky ngay taskatu xibaar lu ni mel noonu noo ko noo ko jàngatee. non xam nga xam nga gars yi lii naa leen tuuti nii. oui territoire yi quoi ñu signé. oui xam nga man d' accord man sax ñu naan journaliste du jël position non. waaw ah. le journalisme d' opinion a toujours existé au Sénégal. Hmm. d'ailleurs sax ñu bi ñuy def nii opinion moo ko jiitu. Lamine Gueye dafa amoon journal am Senghor am journal am. loolu format boobu la ñu dem ba ay 1974. avec mmh. l'ouverture démocratique multipartisme limité bi. Mmh. la ay promotion ak le politicien commencé judd ay ñoom Mame Less Diafy. ak hmm. Boubacar Boris Diop. mooy forme presse bi ngay gis. ci lañ commencé temps presse bu neutre Ablaye dafa doon am ay journal soppi. Hmm. et cetera donc ay ànd jëf yëpp. presse hmm. d'opinion dafa am. boo demee France am na fa boo demee Amérique. journaliste day far am na genre yoo xam ne muy chronique di éditorial. di billet et cetera di kii commentaire. da nga ciy wane sa opinion. donc effectivement journaliste. maa ngi fàttaliku Madiambal Diagne. waay def ay affaire contre troisième mandat. de Abdoulaye signé na ko. der moom nee sax maa ne sama journaliste xeex leen Abdoulaye Wade daf ko wax da kaa wax il a dit maa ne sama journaliste xeex leen Abdoulaye Wade loolu moom dama ko contre déclaration boobu par contre. ah la fekk mu ne maa ko wax seen journaliste. dégg nga je suis pour que non pas xeex Abdoulaye mais je suis pour que Abdoulaye dem nañu waaw dañu fexe ba Abdoulaye dem pour être fii quoi factuel. wax na ko ci Pape Cheikh Sylla CNT bi wax na ko ci Maimouna Ndour Faye man contre ma ko de. mais l'essentiel les faits mënoo ko changer. mais xam nga ne fii lu ma jaaxal ci yenn signataires yooyu. mooy. dama yaa dégg ci réseaux sociaux yi ñoom il faut de la propagande pour Pastef. ah oui ah mais si. ci signataires tous les signataires oui. oui dañuy def propagande pour Pastef carrément carrément te loolu dafa bëri sax ci taskatu xibaar yi léegi nag. carrément il faut de la propagande pour benn parti politique loolu mooy xaw a yàq kii bi quoi amoo problème ci li ñu signé quoi. Hmm. jox conseil ñoo xam ne ñoom ëpp. bon du ma ne du ma sa bopp daal ñoo ma ëpp mérite. parce que ñu hmm. tam am na fu ñu jaar ba mais xëy na nangu xam-xam boobu. Hmm. parce que ku la jiir ci ndëgg la nag moo lay wan foo toog. te gis hmm. naa ñu gën a yàgg si métier bi. du noonu. mais man damay la gis dañuy def propagande. donc loolu tam dañ ko war a moytu parce que fi réew mi toll. Euh, xam nga donte sinance yenn saa yi bu ko neexee far mais nag Sénégal boo amee jàmm ba tey. on doit ça la qualité de la presse sénégalaise. depuis ay années 90 ba tey nag. quand même Walfadjri ak Sud FM. seen tëddee njaaxaanaay deux mille defe cinquante pour cent moo tax alternance bi am quatre-vingt-dix-huit lañ ko commencé législative yi ba deux mille douze ak yëpp. kon nag tey pour man rek waroon nañu mën a continuer ci loolu. Hmm. maanaam daal ñu xaw mooy moytu débat boo xam ne jarul dugg. Hmm. waaw moo gënoon daal su ma sañoon. ñu bañoon a. waaw ah bind. waaw waaw waaw ñu bañ ñu bañ kii quoi xam nga mun nga yem rek ci waxe factuel bi. Hmm. ah dem nga jox borom xam-xam droit mu wax ci troisième mandat wala pour man moo gën a kii quoi. xam ne. dép li ñu tuddee dépositaire dangereux la. waaw dañ koy déglu quoi moo moo gënoon pour man daal. Hmm. parce que tam réew mi dafa soxla ay journalistes am tey heure bii fi réew mi toll. Hmm. waaw dafa soxla ay journalistes ñu factuel. man loolu ah, laa jàpp quoi ci anamu factuel waaw parce que pour solution quoi. pour hmm. solution. waaw pour solution quoi. ak enjeu bu mënti am. le journaliste yi di gën a factuel daal. te man malheureusement dama gis nag léegi. journaliste yi bëri factuel tu dañoo far dañuy nekk ci ay agenda yoo xam ne. pour xeex la quoi. xeex ah, la ah euh, ko aborder affaire Russie bi. justement. dama noonu dama koy def dank fanaanal ñëw ci. parce que léegi moom. il faut ñu wax ñëpp ni yaa ngi ci kër gi. waaw ah, ah, loolu moom dinañ ko annoncé mais. déjà bu fekkee mën ngaa ñëw ñun. Mhm. Euh, ñu jeexalee pàcc boobu. Euh, ci naka nga comprendre ce qui s'est passé le samedi ba tey mu ngi def ay jeexital. Wagner Poutine. xam nga ban jàngat laa ci am rek bu gaaw. lu ñu soxal. Hmm. mooy gars yi nekk ci réseaux sociaux yi rek li may faral di wax ak yenn sénégalais yi. Hmm. xam nga anti impérialiste anti impérialiste di jaxase rek. <laughs> am na loo xam ne kenn relevé wu ko Aïssata Tall Sall. oui daaw bi wax na di ñëw. Sénégal dafa présenté ay réserve am. diplomatie hmm. sénégalaise. mu ne affaire sécurité da nga koy waxtaan ak say voisins. xam nga tey boo xoolee depuis démb ba tey. waaye tubaab bi xamul leen jaaxal. avenir Wagner ci Afrique. mais ñun nag Wagner dafa dend ñun. ci Mali gii ah kon donc xam nga foofu gouvernement Sénégal yay nañu doon wax parce que gis nga fii. Hmm. man d' accord ma ñi ni ñuy xale bee ay Senghor xam nga sànq am na lu ma wax loo xam ne. xëy na àdduma kaa Senghor wala Abdou Diouf mais dañu ay homme d' am xam-xam nag am ñaan la la prospective. Hmm. man may nekk xale damaa contrôle ay Senghor yi mais looy gën a màgg di xam tuuti nga ne ah mais ndekk maa xamutoon dara de. Hmm. yi nga Sénégal dafa am lu ñu tuddee le principe des double reconnaissance ci diplomatie. Sénégal rek mooy dëkk boo xam ne day ànd ak Corée du Nord ak Corée du Sud te souvent boo àndee Corée du Nord doo ànd ak Corée du Sud. oui même ci même temps bi dañuy ànd ak ñaar yëpp Sénégal mooy dëkk boo xam ne dafay ànd ak Allemagne de l'Est ak Allemagne de l'Ouest. waay ci même au plus fort de la guerre Sénégal dafa am relation ak URSS ci Chine rek la ñuy ànd ak soit Pékin soit Taïwan mais même Chine boo xoolee sax pour mu duggu ci ONU ak yooyu. Hmm. dëkku africain ci joué rôle Sénégal boo ko xoolee dafa contribuer ci lu libéré ci xeexu Palestine bi. Hmm. parce que en 1973 bi guerre Kippour amee plateau Golan nekk Égypte. Hmm. Senghor moo ne président africain bu Israël tegee tànkam Égypte rek nañu génn fépp. loolu tax Sénégal mooy présider au destiné du. waay du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. Hmm. donc mun na nga koy guerre Biafra France ak euh, Côte d'Ivoire. bu fekk bu wàññi dañoo xeex état Nigéria Senghor moo ne kenn du xeex benn état africain di ko diviser. diggante Maroc ak Mauritanie dañ ci joué rôle donc dañoo am diplomatie bu mag. waay fii nag comme débat bi léegi dafa géopolitique. Hmm. ñun ñu xamul ñu sama genre yi nañuy may ñu nekk fay ci ministère affaires étrangères nga xam ne dañoo tëj seen gémmiñ ay karaw yu weex borom karaw yu weex lañ jàng loolu. xam ko waay nañ di bàyyi ñuy xalaat di liggéey. parce que boo sociaux di jàpp bopp xale yi di toj. waaw kay na Russie ñëw na diw ñëw. xale yi di génn di taal. keroog maa ngi gis université xale yi manifester. ci xeetu mujj yi. rapport Russie lañ yor. justement gis nañ sax yenn parce que gis nga loolu muy Ousmane Sonko. di Macky di Karim Wade Khalifa ku réew mi ñor question yu mel noonu dañ ko war a def pacte. pacte pacte di ci waaw loo xam ne nii loolu amul luy changé quoi loolu déggoo la ci am ñoom politique étrangère ak ay défense loolu parce que réew mooy fa toll waa ah. hmm. attention. Hmm. bu ñuy ànd ak Russie ñu décider li ñuy ànd ak Russie bu ñuy àn ak euh, ñu décider ko ndoo mais xoolal Amérique bi muy doxee noonu lay doxee. waay comment ça sañ a changé doctrine Amérique ci Israël ban kenn moo ñëw saa ñëw pouvoir foofu di ko changé amut. donc dafa am levier yoo xam ne may ñaan gis nga. waay li li xew nii nag. waay kenn xamul njeexital bi. lii xew nii. actuellement Russie. waay waaw moo tax donc bala ngay am ne fa yi ñuy tal nii. Hmm. dafa am euh, ay euh, dynamique extérieure yu imposé wu si ñun. te dañuy jël compte loolu yëpp ci suñu pétrole beeg gaz beeg ressources yi. am mais bien sûr dafa am kii no tey dafa am benn principe bu ne quand les États-Unis avancent euh, kii quand la Russie avance les États-Unis tam avance di ko fekk si. boo jëlee hmm. guerre Libye loolu la woon. ce qui explique la présence américaine en Libye. c'est parce que Kadhafi Russie moo ko ngemb. donc te Kadhafi li mu bëggoon mooy jaaree Tchad nangu ay mel dëkk yu mel ni sax. ba hmm. Sénégal sax exclure ko woon. <laughs> ku koy Samba Sagna Gambie yooyu yëpp moo nekkoon ci ginnaaw. yaa ngi dégg. Libéria Sal Taylor ñu ko formé Benghazi Fodé Sanko bi taal Sierra ñu ko hmm. formé Benghazi moom Sal Taylor. dégg nga donc ay affaire yu complexe la sa waay. Hmm. waaw dañuy def attention daal foofu. ay domaine la yoo xam ne ku ci xamul. dañ ci hmm. maandu parce que ay coono yu xajul suñu bopp ñun. li ñu ciy dimbale tuuti rek mooy ñu nekk benn say te benn say boobu ñu nekk nag. moo ñu dimbale ba fii. ñoom stabilité ñoo am stabilité c'est des questions yoo xamante ne war nañ ko mën a aborder même ba ci présidentielle yu ñu parce que ay enjeux yoo xamante ne am na solo Juan Branco moom xam naa doo ci non lu ci yàbb mooy may wax rek ah doo xam lu gaa yi bëgg ñoom yenn saa ñu ne anti impérialiste tey ba Branco mooy seen référence xam nga waxu Branco moom hmm. Branco c'est un législateur rek quoi il est dans gisoo dara ci process bi ak fi mu ci toll ak yéegi li wax lu mérité lu mérité wuyi dañ ne dafa am guerre boo xam ne secret yi génnaguñu. lu la wax sànq il faut ñu xaar ba. ba mu génn waaw ba xam lu bëree bëri parce que li may gis yi mu xew ci réew hmm. des des affaires aux larges ramifications. affaire yu la pour man dafa am bànqaas yu ngand. kon Bourgi li mu doon wax naan complot international bu viser le président Macky Sall et l'État du Sénégal da nga ko jox crédit. dëkk bu a am ak gaz dafa am complot international contre dëkk boobu nee naa la sànq Tchad bis bu mu parce que boobu dafa am ko tuddoo Maurice Robert moo jiite agent secret français yi bureau mi Dakar la ko yoroon bon da lay envoyé ay jigéen prostituée ah François tambal bay am comme ci ànd ak ci guddi gi guddi gi neex mu ne ko damay waaj a bàyyi France jox pétrole bi Amérique ci lañ ko commencé boom